wa nashhadu an laa ilaha illallah wahdahu sharika lahu wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli mbokk téléspectateur Prestige Thiès yéen ñi baaxoo seetaan seen émission jotaay diine ginnaaw bu ñu musloo ci seytaane suñu noon bu mag boobu euh, ñu ngi sant borom bi subhanahu wa ci kàttan ak man ak wér gem ñu may bañu ñu ci si jakarlo gi yeen fi ci suñu émission jotaay diine di nuyu ñepp di ziar ñepp di jox nuyo bi suñu yaay Adja yassin jaay euh ñuy dalalat fi suñu invité bi di Seyda mam yassin Fall mi nga xamanteni euh, plateau jotaay diine xam nañ ko sha allah euh, yag nañ ko fi invité mu yag fee wax ay wax yo xamanteni yu am solo la yo xamanteni euh ñi ngi ñaan yalla mu defal ñu ñuy dégg ak di top. ñu koy sant bu baax diko ko bàyyi mu ak téléspectateurs yi bala ñuy dugg ci bir émission bi sayda bismillah jazakallah khairan a'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim lain bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma la ilma lana illa ma allamtana mbokk juliti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sayda ñu ngi lay delloo ziar di la jox nuyoo bi nga tegal ko mboolem ñi nga xam ne ñoo baaxoo safoo li nga xam ne moom mooy prestige ci émission bu am solo boobu ah, yal na yàlla barkeel salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah ñu nuyu suñu eh, bi nga bàyyi kër ga ko ñaanal yàlla wér gi yaram eh, Seyda tey dañoo bëggoon ñëw ci thème boo xamante ni eh, bëgg nañu leral ko ba nga xamne dina leer ci euh, julit yëpp dina leer ci ñi nga xamante ni ñëpp ñu ngi seetaan euh, émission jotaay diine euh, mu jëm ci jokk mbokk ndax dañoo gis mbokk jamono yi ñu toll dafa tass mbokk yi tass nañu da ngay dugg ci benn famille bo xamanteni ni Seyda da ngay sax waaru day melni ni ñu dara mën nga gis ñaar ñu bokk nday ak bay sax ki jaar ne ki jaar ne ñu tok ay ane duñu waxante wala nga gis papa dom nijaay jarbaat cousin cousine yooyu day am nga ci famille yi yenn saa ñu bokk benn kër yenn saa ñu bokk ci quartier bi yenn saa yi ñoo xam fu ñu nekk mais da ngay gis ñuy tongook ak di ba di am mel ni xaj ak muus di xiiroo ko ngaayoo yenn saa yi affaire miraas a leen di boole yenn saay doo xam nekk na daal loo xamante ni mbokk lu tas la loo xamante ni Seyda eh, ñun en tant que jullit war nañu jël ay pexe yoo xamante ni pour pour delloo si waat mbokk pour jokk ko lay doon pour euh, defaraat famille yi su ko defee laaj bi ñu lay njëkk laaj mooy lan mooy jokk mbokk Seyda. waaw jazaakillah xayran Seyda yal na yàlla fay la euh, mbokk moom euh, ku ko tas rek yaa ngi def li nga xam ne moom la yàlla subhaanahu wa taala gën a bañ balaa xëy na ñuy wax sax liy tas mbokk googu d'abord dañuy wax mbokk googu mooy lan mm-hmm. mbokk. dañuy wax ne al arham dafa bokk ci asmaullah ci rahma mooy yërmande boobu mu ñu moo tax ñu ne silatu rahim mooy jokk mbokk mbokk googu nag buñ ci xamle ko rek lan mooy mbokk dañuy wax jël wax bi nga xam ne moom mooy acheikhu albani li mu wax ci rahma boobu ci silatu rahim boobu mu ne al arham hum al aqarib min jihati al ummi wa min jihati al abi mu ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ay mbokk daal mbokk buñ ko dee wax muy arxam yooyu moom mooy ñi nga xam ne dañoo bokk ci seen côté moo xam côté papa la wala mbokk seen côté li nga xam ne moom mooy seen côté yaay waaye dafay gën a yaatu ci seen côté yaay même ñi nga xamante ne dañoo bokkaat ak seen yaay ñooñu tam ay mbokk la ñuy doon nga gën a demaat yaatal ko ñi nga xam dañoo bokk ak seen papa it comme seen rakku papa yi comme ni nga waxee nga xam ne léegi ñooñu nag mooy li indi problème mooy ñëpp a tasaaroo léegi ñooñu ñëpp ay mbokk la ñuy doon kon pour ñu ba ci li nga xam ne moom mooy al ajdaat wal jaddaat ñëpp ay arxam lañ mooy maam yi sama maam sa maam te ñoo bokk ndey baay wala ñoo bokk baay ñooñu ay mbokk lañ dañ leen di jàppe comme say mbokk kon ñooñu ku boo xamee ne Seyda ñooñu say mbokk lañ kon defe naa tas du fa war a am am na gën na yaatu sax noonu nga xamante ne ñoom ñii ñeene bokk papa seen doom yow sa doom ak sa doom ay mbokk lañ kii yaa bokk ak moom yaay sa doom ak doomam ay mbokk lam ba seeni doomaat tam ñooñu dañuy ñoomaat nekk ñi nga xamante ne ñoom ay lañ tas googu nag ni ko waxee nekk na loo xamante ne gaa lu bari la lu bari bari bari te li koy indi bari na wax nga ko léegi léeg côté alal alal bu néew bii dong dong dong dong léeg-léeg tas gi dina nekk ci côté boo xamante ne kenn ku ne dafay puukaréew di won sa morom maa la ëppale wala maa la ëpp xam-xam wala ni ma mel meloo ko fi ma àgg àggoo fa nangam ak nangam yooyu dana nekk loo xam ne sédd dafay tas li nga xam ne moom mooy mbokk surtout mooy puukaréew ci kaw nit ndax nit dafa gëm li mu doon en boo ko wonee ne maa la ëppale lii rek boo moytul mbokk dina tas ndax moom itam li nga ko wane ne maal la ëpp lii dina réservé wu dina am benn réserve boo xam dafay dox sa diggante ak moom mhm. ndax dafay bàyyi xel ne kii kat du sama morom du sama allié waru ne waruma nekk koo xam ne damay jëflante moom wala nang parce que won na ma lim ma mëne ndax it léeg-léeg ñu waxante ko suñu famille ci ci biir famille dinaa la won ne la du ma sa morom dinaa la won li ma la mëne dinaa la won ne la li ma am amoo ko li ma mel meloo ko kon du ma sa morom su boobaa loolu mooy sabab la ci li nga xam ne sey dafay tas li nga xam ne moom mooy mbokk yooyu kon yooyu bu ñu bëggee suñu mbokk defaroo mbokk gi baax il faut ñu dindi yooyu ba mu set wécc comme ni ñu ko yàlla waxee subhanahu wa taala wa ulul arxaami baaduhum awlaa bi baadin ñi nga xamante ne ay mbokk la ñenn ci ñoom ñoo gën a yey ca ñeneen ña kenn ku nekk xam ne sa mbokk la yow yaa gën a yey sa morom ci sa sa bopp comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe moom itam kat ki nga xamante ne ki gëm yàlla gëm yonent bi daal dafay def da dafay jël boppam def ko ni moroomam du ko def sama bopp ma leen gënal li ma bëggal sama bopp laa la bëggal nii ma mel laa bëgg nga mel na li ma la tanee dama la cay dimbale comme yonente bi salallahu alayhi wa sallam gis nañ yonente bi salallahu alayhi wa sallam ku xam li nga xam ne ni la ko ay mbokkam jàppe woon salallahu alayhi wa sallam fitnaal nañ ko embargo nañ ko te ñoo ñëpp ci ñi jël a sës ci doon def loolu ay mbokkam lañ ñi ko génne woon màkk ay mbokkam lañ ba mu dem madina ñi ko doon sànni ay xeer ay mbokkam lañ gis nga bi nga gisee ne sax de génn na màkk ba nga xam ne fatxul màkk ñëw na ñu war a tolloog lu mat fukki junni mbooloo ak nangam te kenn ko ne yaa nga yor sa arme ñëw bil màkk am na ñoo xamante ne dañoo daw dugg seen biir kër yi ndax jàpp nañ ne la ñu ko wonoon lañ ko defoon dina fayu ca ñoom waaye daf leen a jàppe li nga xam ne moom mooy ay mbokk baal leen ko mel ni Abu Sufyan ibnu Xaaris moom dafa ne moom dafay daw jël njobootam ak famem yëm dem ca saxaraa ba ca ca désert ba bu demee ca désert ba daal jarab mu xiif fa mar fa ba dee fa ndax xam ne yonent bi waxoon na ko ay wax yoo xamante ne daal moom da koy rey te bu koy rey itam du doon rey bu ndaw dina ko corot ay jaase ba mu jeex takk mook famille ndax wax boo xamante ne waxoon na ko yonent bi te yonent bi lu mu bokk ak moom kon moom mu dem ca désert ba dee fa xiif fa mar fa moo ko gënal mu jàmmaar mu xaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax jàpp na ne da koy fay fay bu bon comme ni ma ko ko defee woon mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu leen wax daf leen a jéggal dem leen jéggal nañ leen. Mhm. kon jéggalante boobu tam dafay duggaat tam ci li nga xamante ne pour mbokk gi defaroo jéggalante jéllalante yëpp ndax it mbokk goo gis léeg-léeg tam ñu nga dégg ñu mbokk goo gis am na jàppal diw. li nga gis ñu gën a juboo di gis ñoo xamante ne dañuy féewaloo waaye tam dafa am li koy defar mooy di jéggalante ak di jéllalante Seyda kon loolu ci liy defar mbokk la. jazaaki laa xayran Seyda euh, loolu am na solo nit ñi leerale euh, mbokk mooy lan arxam bi nga wax muy yërmande boobu mm-hmm. kon ku ne war na cee bàyyi xel kon loolu mooy mbokk noonoo warul am seen diggante mm-hmm. mbokk gënalante warul am seen diggante mm-hmm. mbokk ni nga wax maa la ëppalante warul am seen diggante ndax yërmande moo war a dox seen diggante te yërmande defe naa Seyda fu mu dox ki ëppale moromam dina ko jàppale ki ëpp xam-xam dina jàppale moromam ki ko ëpp alal dina jàppale moromam ki ëpp leneen moromam tamit dina ko ci jàppale kon maa la ëpp ëppale waru fa nekk ci diggante ay mbokk comme ni nga ko leerale lu déggalante gi aussi wax nga ko ay mbokk pour mu nekk bi mën a rafet il faut ñu nekk ñoo xamante ni ñuy déggalante la ñuy doon kon loolu am na solo ni nga ko ubbee yàlla yàlla fay la yiw mm. euh, Seyda kon ni nga waxee ak ni mbokk nekkee yërmande dina war a am ay ngëneel yoo xamante ni nekk na ci biir alxuraan mm. moom lañu bëgg nga ñëw ci ngëneelu mbokkoo ci biir alxuraan. Mm, jazaakillah xayran waa zalika tam mooy li nga xam ne moo nekk ci mbokkoo ndax loo gis rek am na lu gën am na lu ca gën a gën lu lu gën a baax am na lu baax waaye dafay am lu gën a baax waaye ñëw na ci alquran kazalika la ñëwee ci li nga xam ne moom mooy euh, euh, sunnay sayidna muhammad salallahu alayhi wa sallam waaye boo ñëwee ci li nga xam ne moom mooy alquran suñu borom subhanahu wa taala mu ngi fi waxaat ne wallazina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusala wa na rabbahum wa yaxaafuuna suu alxisaab yàlla subhanahu wa taala di wax ñi nga xamante ni kat dañuy jokk mbokk kon jokku mbokk gis nga alxuraan lu mu addu rek nekkul lu ndaw loo xam ne dañ ko war a soofantal kon su boobaa bu soofantalee amee mooy bàkkaar am na alxuraan lu mu la defal yàlla lu mu la ne defal def rek moo ca war a topp waaye ñàkk def waru ca am mu ne ñooñ nga xamante ne kat dañuy dañuy def li nga xam ne moom la leen yàlla sant moom mooy silatu rahim mooy li leen yàlla sant subhanahu wa taala ñu jokk ko muy li nga xam ne moom mooy jokk mbokk boobu waaye nag wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna suu al xisaab loolu la ñëpp war a bàyyi xel bu ñëpp bàyyi woon xel lii mooy ne ragal li nga xamante ne moom mooy yàlla suñu borom mi ñu bind ki nga xam ne moo la bind moo lay wërsëkal loo man moom la loo mën a ditam moom la ndax bu ñu fàtte ndam yàlla moom moo séddale li nga xamante ne moom mooy dundam bi ci ni ko neexee kon jaam li mu ci am rek moom mooy nangu ñooñu di ragal li nga xam ne moom mooy seen borom boobu waaye itam di bàyyiwaat xel li nga xam ne moom mooy suul xisaab bu ëllëgee ah, yàlla dañu laaj mbokk gi nag ñu ngay ragal bu ëllëgee yàlla xisaab leen xisaab boo xam ne xisaab bu naqari bu metti lay doon ndax la ñu jëflante woon ak seeni mbokk te day am de day am ñoo xamante ne yàlla subhaanahu wa taala euh, am na beneen ay bu ñu wax ne su ëllëgee yowmal xiyaam sax dina leen laaj li nga xamante ne moom mooy mbokk googu nan lañ ko doxale woon kon mbokk lu yàlla bàyyi xel la lu mu bëgg tam ku koy jokkul ndax nee na am beneen xadis boo xamante mu ngi wax ne euh, ci euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne yàlla dafay bind mbokk bind daal ne mbokk day ci man la bokk ci sama tur la bokk mooy muy arrahman boobu arrahman arrahim moom mooy arrahman yàlla moom mooy tam arrahimu kon loolu jar a bàyyi xel la moo tax mbokk googu dañuy wax ne ku ko dog yàlla dog la waaye ku ko defar yàlla defar la yàlla defar la kon lu jar a lu jar a jokk la sayda mbokk tam mooy li nga xam ne ba tey nekkul loo xam ne dañ ciy gàttañ lu ne mbokk gi fii la waay mooy si silatu rahim boobu dafay ñëw dugg ci li nga xamante ne seede moom mooy al iman soo ko defee xamal ne dugal nga sa bopp ci li nga xam ne moom mooy gaalu iman xam ne am nga iman sa bopp ndax imaan bi mooy tax nga mën a jokk mbokk gi waaye dafay waneen tam def nga li nga xam ne moom la la yàlla subhanahu wa taala sant muy nga jokk mbokk ci ñi nga xamante ne jokk gi nag dafay nekk ci ci waajur yi comme li ma ko waxee ak waajuri waajur yi seeni mbokk ak ñëpp waaye dafay ñëw tam bil qawli wal fi'li jokk mbokk gi dafay nekk ci wax lu nar a dagg nga defar bu fekkee wax a koy defar defaral wax ko ba mu defaru waaye bu fekkente ne jëf koy defar tam jógal nga jëf ba mbokk googu defaru mu ne ci ñan nga xam ne moom mooy al aqarib xam ne al fil arham ñoo la jege ci li nga xam ne te moom mooy mbokk googu waaye ci lan bil ihsaan sayda ba tey da ngay kii continuer yaa ngi ci mbokk ba tey defal mbokk de ci al ihsaan rafetal li nga xamante ne moom mooy mbokk googu rafetal leen ci ci ci ñoom moo xawlan wa fi'lan wax ak jëf su ko ba xattaa sax loolu dina ñëwaat defar mbokk googu ñëwaat nekk ci baynal azwaaj diggante soxna yi ak seeni borom kër xam nga soxna ak boroom këram kenn mënatu la xas kenn dem nañ ba dooni mbokk ndax doom ali dugg na seen biir boole leen kooku kenn mënatu xas kenn comme ni ko yàlla waxe waqad afla ba'dukum ba'dan kenn ci yéen buñ ñu ne moromam kenn kenn mënut taxas xas kenn say dem loolu kon yàlla subhanahu wa ta'ala ci ñooñu dafa bëgg ñu jokk ci ñoom li nga xamante ne moom mooy mbokk wax jaag jëf jaag waaye xattaa sax ñi nga xam ne moom mooy almamalik gis nga gouvernement yi nga xamante ne sax ñu ngi nekk ak ñoom ñu naan président ñu naan ministre nàngam ak nangam. sax ñooñu dañoo war a faxe sax jokku seen jokku ak ñoom mbokkoo goo xam ne mooy mbokkoo ba nga xam ne moom mooy charte ba ñu teg ca réew ma nga xam ne ca la ñuy dund loolu la day ñëw ci ulul ci ci ci li nga xam ne moom mooy jokk mbokk Seyda ak lu gën a yaatu sax loolu ci lan moom mooy bi aadaabi xuquqi diin wa ya ndax dëkk boo dem am na charte ya mu teg am na frontière yoo xam ne daf ko fi teg ne lii mooy frontière comme ni ko yàlla ala lil ala inna lil ala li kulli malikin xima ala wa inna ximallaahi nee na buur bu nekk am na ay frontière am waaye frontière yàlla mooy li mu xaraamal kon buur bi bu tegee li nga xam ne moom mooy ay frontière am ne lii laa bëgg lii laa bañ mu ànd li nga xam ne moom mooy defar suñu àdduna boole ko liy defar sunu sunu sunu dund àdduna defar àllaaxira defaraale suñu diine kon loolu tam dañ cee war ànd mbokkoo ci di àndandoo di ko ëkkateendoo defarandoo seeda yooyu dafa bokk ci li nga xam ne moom ulul arham yooyu seeda macha allah seeda Euh, nee nga euh, samir naa wa bi nga wax yàlla moom boo waxee dégg naa topp naa moo ci war a tegu li nga xamante ni wax na ko ci mbokk am na yoo ci leeral te wax nga ku ko dog yàlla dog la képp ku jokk mbokk yàlla jokk la képp ku dog mbokk yàlla dog la waaye yi nga ci yi nga xamante ni moom nga wax moom moo moo koy war a euh, lal yooyu moom la war a bàyyi xel bu baax a baax a baax muy al imaan bi imaan boobu il faut mu am ci Eh, ngir mbokk gi mën a ja eh, ñu mën ko jokk bu baax parce que mbokk Seyda xam nga mbokk lu nekk nga ciy gis di nga gis mbokk goo xam ne na mu mel neexu la di nga mbokk goo xamante ni fa muy dem ak la muy doxalinam ak ay tërërilam eh, dafa jaarul yoon lu ko neex lay def waaye du tere doo dak sa mbokk boobu bàyyi ko completement donc il faut nga ànd ak imaan boo xamante ni danga naan man kii kat comme yàlla dane naa jokk mbokk naa ci wastu àq naa ci def li ma mën ihsaan bi aussi foog mu ànd ci ihsaan bi wax nga ko tamit foog mu ànd ci il faut ñuy rafetal ci diggante mbokk yi il faut ñuy ànd bi ñu koy sellal di ko def te yàlla rek tax loolu nekk na loo xamante ni lu am solo la xam naa temps bi moo ñu dul may pour ñu détailler lépp waaye li ngay wax yëpp am na solo dañ lay laaj beneen question boo xamante ni mooy jokk mbokk ci ahadis yi waaw jazaakilaa xayran waaw kazalika rek ni mu ñëwee comme ci alxuraan noonu la ñëw ci sunnay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa kon batay day fay wane li nga xamne mom moy solos li nga xamne mom moy mbok comme ñi ñi ni ni ni ko yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waxee moom itam ñu jël ko ci hadith bi nga xamne ne ñu ko jël ci ummul mumin aisha radhiyallahu anhu muy wax ci li nga xamne mom moy mbok mbok gogo muy wax ni aruh arham muallaqatun bil arsi taqulu man wasalani wasalahu allah wa man qata'ani qataahu allah ci hadith bo nga xamne muslim moko solo mune ya aisha di wax ni neena mbok da fay wax ni man daal dañ maa wékk ci arasu yàlla man ku wékku laa ci aras kon mbokk moom mu nga ci arasu yàlla ba mu pour ñëpp xam ne ku ko dog yàlla dog la mbokk mooy dafa mel ni kon mbokk sax dafa ñëw di puuk réew di wane dayoom di wane martaba bi nga xam ne moom la am ci ci ci ci sunu borom subhanahu wa taala mu ne képp ku ma bokk ku ma jokk yàlla jokk la wa man wasal nii wasaluhu laa ku jokk rek yàlla jokk la mu ne waaye wa man qata ani qataahu laa ku ma dog nag yàlla subhanahu wa taala dina kon ñu wattu li nga xam ne moom mooy dox bopp kon nañ wattu bu baax a baax ndax li xadis la sunnay Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam kon dafa bokk ci dog ko dafay bokk ci li nga xam ne moom mooy euh, bàkkaar yi kon saa boo duggee dogee mbokk rek Seyda mooy am nga bàkkaar waaye saa boo jokkee mbokk rek mooy ne am nga ci li nga xam ne moom mooy tuyaaba yi te kat euh, xëy na dina feeñ ci kanam ci yeneen i waxtaan ci kanam nga xam ne lan lan la mbokk googu jokk gi nga koy jokk lan la lay jural ndax nak dina am lo xamne ay resultat yo xamantene ginnaw bi nga defé li li nga ci amé ndax liggéey bo gis rek nit ki da fay am da fay am lu muy liggéey mais mu ngi sentu ay resultat mais kon dina xeyna na na feeñ ci suñu ay waxtaan yene incha allah moo am benen hadith bo xamantene yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam da koy wax ni ma min ma min zanbin ajradu an yaj'al allah li sahib an yaj'al allah li sahibihi al uqubata fi dunya maa yudaxiru lahu fi l axirati min al baxiyi wa qaati rahim gis nga solo mbokk ñëwaat ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni amul benn bàkkaar bu gën a rëy bu gën a màgg boo xamante ni bu ëpp loo xamante ne moom mooy an yaj alallaahu li saahibihi al uqubata fi dunia nga xam ne yàlla dina ci defal boroomam mbugal moo xamante ne sax boo moytu dina ko ko def fii ci fi uquba fi dunia dina ko ci xisaab fii ci àdduna waaye tam dina ko ci dencal am ñoo xam ne da ko koy tat xiiral bàyyil ko ko fële ci àllaaxira lii da ko koy fay fii ci àdduna la ca des mu dencal ko ko ba àllaaxira mu xisaab ko ci ci loolu ci dog bokk rek waaye mu ne ci lu ëpp loo xamante ni ci yomal xiyam da ko koy dencal minal bari yi koo xam ne dafa beew ndax mbeewte moom dafa bari mbeewte moom buñ ci duggoon tey rek moom beneen affaire la ndax da ngay gis ku am di beew ci keneen keneen di beew ci keneen comme niñ ko waxee ci commencement bi xam-xam wala nangam ak nangam ñëpp ni da ngay léeg-léeg da ngay beew si kaw morom di ko won li nga doon te mbeew te yàlla lis na li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ba bàkkaar gënu koo rëy ndax yàlla na ci xisaab ci ànd bu àllaaxira mu dencal la ca des boo ñëwee àllaaxira mu xisaab la ci kan ak kan la mooy albaxi yi mooy ki beew waaye nag wax qaati u rahim ak kii dog mbokk kon ñaar ñooñu moom nañu pare amuñu bàkkaar bu rëy bu gën bu gën a rëy boo xamante nit dina ko def ci kaw suuf bu ëpp li nga xam ne moom mooy mbeewte ci kaw nit ñi won leen ne man na mën na am buur laa mën na am nangam laa mën na am nangam laa waaye dama leen di won sama kàttan te loolu defe naa ne moom am pagaay ñu ngi koy gis ku man sa morom duma bari na lool waaye itam mbokk gi ku ko dog itam kon yàlla subhanahu wa taala mu ngi la bàyyi loo xamante ne di ko gis ci àdduna waaye bu ëllëgee itam di ko gis àllaaxira ndax olof dafay faral di wax ni nit dina toll foo xamante ne kat dinañ ne ñi dul ay mbokkam leen may ñu kat ñu ba fa ay mbokkam kon loolu war nga koo sóor mooy na nit dina toll foo xamante ni kenn du ko supporté ku dul li nga xam ne moom mooy ay mbokkam kon foofu incha allah dañ lay delloo kàddu bu Seyda Seyda loolu tamit euh, macha allah euh, leer na euh, wax nga ni mbokk lu rëy la mbokk nekk na loo xam ne lu rëy la loo xam ne ku ko jokk tuyaaba ngay am waaye ku ko dog bàkkaar ngay am tuyaaba nag xam nañu pour lan la tuyaaba dalay dugal aljana bàkkaar dalay dugal safara yàlla ci yàlla musal kon booy jokk mbokk dina dangay yokk say poids yu baax say poids ba nga xam ne buñ ko pesee mu ëpp lële yàlla dugal àjjana yàlla ñu ci yàlla boole booy dog mbokk yaa ngi wàññi say ba di yokk say bàkkaar bu ñu pesee eh, bu ñu pesee bàkkaar yi gën a ëpp lële eh, safaan la yàlla nañ ci yàlla musal kon daal ndekete mbokk sëy daal importance bi ñu ko war a jox ñun ndekete joxuñu ko ko des na torop torop torop ñun ci mbokk ni nga xam fi nga xamante ni fa lañ ko waroon teg mm. des na bu baax a baax a baax a baax a baax yàlla na la yàlla fay ci li nga xamante ni moom nga ñu leeralal mm. ba ñu xam ne mbokk kon dafa am importance boo xamante ni ñun en tant que jullit dañ ko ko war a jox ndax yàlla subhanahu wa taala jox na wax jox ñu ko euh, yéegee ñu foo xamante ni euh, moom la ñëpp bëgg Eh, wax na ni mbok ci bopam sax da doon gis bopam banan kuma ku ma jokk eh, yàlla la kuma dog yalla dog la kon lolu tamit luy wane ni mbok dafa am importance la yalla yalla xiinu ci bopam ba nga xamanteni ni suñuy mbok dinañ leen eh, topato di leen set di xam ci li ñu sey da mën nga ñew sax yaw ñu ne la ki yaayam ak sa yaay yéen a bokk ñoo bokk ndey ak baay te du ngeen xamanteni lolu dañ koy dund wala seen ñaari papa yi nekk ay frère wax jommale naa sax jëlale naa sax ay cousin ñu ne seen yaay ay cousine lañu wala seen yaay mais am na ay doomu ndey yoo xamante ni xamante wuñu wala ay doomu baay yoo xamante ni mm. loolu nag nekk loo xamante ni Seyda lu jara arrêté la balaa mu ñu yóbbu feneen foo xamante ni ñun ñëpp ay réccu lay doon ci ñun mm. kon yàlla yàlla xiir ñu ci jokk suñuy mbokk mm. eh, dajalewaat famille yi doonaat benn ba nga xamante ni li ñu bëgg dinañ ko mën ci suñu biir euh, famille yal na yàlla defal ñu ko ñun ñëpp ñu ngi lay sant di la gërëm ci déplacement bi di la ñaanal yàlla yiw euh, tànku ñëw yeeg tànku dellu yëpp di la bàyyi nga tàggatoog mbokk téléspectateurs yi ndax euh, temps bi ñu jagale loon dafa jeex jazaakilaa xayran xanaa di santaat bu baax a baax a baax rek ci chance bi ñu may pour ñu am ci ba teel lañ ko yàlla boole ak képp koo xam ne dam yaa ngi ciy seetaan di ci defaroo yal na suñu borom defar say mbir ndax xëy na mbokk gi tam ni nga ko waxee noonu ku ko jokk yokk say point yu baax la waaye tam dina indi sax nit fanam bu gudd sax ak ay xéewalam yoo xam dafa yokk ci àdduna kon yal na yàlla defal dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullah salaam wa kon yéen mbokk yi doon seetaan seen émission jotaay diine fii ci Prestige Thiès euh, déglu ngeen suñu mbokk Seyda mam yasin Fall euh, waxtaan bu am solo bi mu ñu indi ci jokk mbokk ñu koy ñaanal yàlla mu fay ko yiw